asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci benn waxtaan wu gàtt rek jëm ci diine ji ñu bokk te nga xam ni léeg-léeg nga gis ci wala nga dégg ci xanaa mos weesu na léeg-léeg sax bés bu ñu xëyee suba ngay dégg ay nit di wax ak def loo xam ne lii dafay ub sa bopp te lépp nag dara sababu ko lu dul ëppal ak xaabaabal te ndaxam day ki yàlla yónni woon ci ñun waxoon nañu iyaakum wal xulu fi diin fa innahu ahlaka man qablakum al xulu fi diin nee na maa ngi leen di bàyyiloo xel ngeen moytu ëppal ci wàllu diine ndaxte kat ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon la leen xalakoon mooy ëppal ci wàllu diine xam nga am sa yëf muy lu baax lool ngay wax ba bonal ko am sa yëf muy lu rafet lool nga wax ba ñaawal ko am sa yëf mu set wecc ngay wax ba tilimal ko loolu mooy li xew léegi mu mel na soo ko doon misaal danga naan jigéen ji tiim ñam di ko dënale maanaam di ko séddale di wax ay loram di fettax di dal ci biir ñam wa luy ñam wa neex neex neex tàmbali na nit ñi dootuñu ko xemmem nit ñi dootuñu ko xemmem nit koo xam ne kii am na sëkk lu ko doy ci wàllu ko ci wàllu melokaan waaye looy wutati leneen di ko ca dolleeti looy wutati leneen di ko ca dolleeti xanaa moos doo jënd sa oto mu génne directement ca usine bañ ko defaree nga nekk ca di seet ak seetantal jënd sa peinture di ko ca raax naan fii waroon naa mel nii loolu bokkul ci nite nga xam ni dañoo jàpp ne li ñu yor dafa manqué kon ndax lu manqué nag ngay wut loo ca yokk yàggul dégg nga fi ñuy wax naan garab sàngam diw feeñ na ca fee ca ndakaaru déggoon ngeen ko fa kër diw diw feeñ na fa ci ay dessin xam nga yoo xam ni alaa loolu tubaab di wax dafa ridicule dafa ridicule dafa ruslu fii ci Louga gi am na at moo xam ne mii njooxee lañ ko def ñu ne xaadim rasul dafa feeñ ci poto làmp loolu mooy suñu quotidien ñun sénégalais ñun sénégalais loolu mooy suñu quotidien bëccëg bu ne yooyu la ñuy dund ku ne di seet loo naatale la ngay la nga nekk waaye mbir mu naat ba pare nag naat bay fërfëri yow nga topp ca rek topp ca rek topp ca rek di wax am na loo xam ni da ngay wàññi valeuru la ngay yor te yëguloo ko yàggul dégg naa fi koo xam ne kii nee na Cheikh Omar al Fouti ca baax ga ak ca sell ga nee na moom gis na ko nee na Inde la nekk nee na xam na sax marché ba muy jaayee Ah, yàlla day maye na xulut maye na it yàgg fi lool xulut mooy sax fi dàkk maye naat yàgg fi lool ndax yonent yàlla euh, euh, euh, nooxin junni at yu manqué juróom fukk la kon suñu nee Cheikh Amadou yi mi ngi dund xel nangu na ko suñ ko tegee ci nooyin moomu waaye nag ci biir wax buñ ko dégloo xam ne dañoo wàññi Cheikh Amadou Fouta yi ci wax ji waaye yokkuñu ko dañ koo wàccee dañ koo rëppeel ku dégg wax dëgg dëgg dëgg di nga xam ni ka nekk ca marché Inde ba di jaay kon kooka keneen la koo xam ni kii kon bokkut ak jàmbari fàkk tëgg ji nga xam ni moo fi nekkoon di xeex ngir lislaam bokkut ak boroom xam-xam ba nga xam ni bii dafa jur ak njaboot ñu nekk fi ay soxnaam ba mu dem ca àll ba moom toog fa bàyyi leen ci situation ba nga xam ni bii loolu maanaam aw xas la waaye du tagg kaa yu mel noonu nag du jeex du xaaj bërki démb dégg naa ko ni dañoo laaj sëriñ tubaa ne ko ndax nit nga mu ne duma nit duma nit nag moom man nag axi sëriñ tubaa man mbind laa ci jàpp duma ci jàpp le leneen ak ku ma ko mën a wax nag ku ma ko mën a wax li ma ci mën a nangu daal mooy ki tolloog moom jamono wala mu jële ko ci ki tolloog moom jamono te la ca la ca am solo mooy da ngay jàpp ne wax bu tukkee rek soppi ko wax buy tukki di soppi kon dangay xam lan nga cey jàpp ak lan nga cey téye man daal li ma gën a yitteel ci waxi sëñ Tuubaa mooy li mu bind ma tiim ko te bu fekkee ne du nit nag kon li mu dund li ñu war a ci moom jaratu la ndax ku nit da jarte yéem say mbir ku dul nit nit ñi waru waruñoo yéem say mbir moom day dégg na xasida walla xadd karram naa bani aadama bañ na ko eh, aaya ba da koo da koo ba faf bind ci ab ab boy ab woy teraanga jooju ci doomu aadama ku nekkul doomu aadama doo ko am te nag sax moom moom moo ñu wax ne ñu diw diw ñu jur moo ko wax moo ne diw mooy sama way jur wu jigéen moo ne diw mooy sama way jur wu góor te ñépp xam nañ ko du lu ñuy nattable du lu ñuy nattable waaw léegi nit ki ne di woy sama way jur nga ne ko juru la te nit ñaari doomu aadama ñoom lu ñu jur lu dul lu dul nit rek monstre la ñaari doomu aadama lu ñu jur lu dul nit rek monstre la monstre lay doon monstre mooy yu raglu yooyu nga xam ne ku leen gis daw te nag suñu borom teraanga ji mu wax ci wàllu jaamu jinneeg nit la ko dig te moom xaadimu rasul ko ne xam na ne du jinne kon nit la wa maa xalaqtul jinna wal insa illa boobu moom xaadimu rasul ci la nekkoon inni la abdun xadimun sirtu dayfaka ya rabbi fa bil wa bil fa bil itqi tuqrini man day suñu borom ab jaam laa ci yow xadimun di liggéeyal ki sa ki nga ki nga yónni ci ñun man suñu borom ba ma dikkee di la ganesi goreel ngama ngama nga ma nga moom nga ma berndeele waaw léegi ngeen bëgg koo génnee moom ci daraja ju sell ji nga xam ni ki yàlla yónni woon ci ñun moom la wax ni moom la innama ana basharum mislukum muhammad rasulullah moo ko wax ci alquran a ko ko wax loo man nit dong laa comme yéen te bi nga waxee ne du nit xanaa ku ne ma nit kay danga nga ne lii moom de du jinne du malaayka xanaa doo ko wàccee ba indi ko ci darajey rabu àll wala nga koy indi ci gàncax xam nga lii te fekk nit koo xam ni kii xam nañu ndeyam xam baayam xami doomam mu nekk ci biir nit ñi yorewul beneen jëmm judul jëmmi nit tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ di lekk di naan di nelaw di ami soxla nga naan du nit loolu wax bu ñaawee noonu kay dara tiimu ko loolu dara tiimu ko xam nga li jaroon a yéem baana li kulli man lahu wilaaya ñu ànd na nii li badii al aalamina aaya moom kéemtaan la te kéemtaan googu la ñu waroon a xool ndaxam nag sax de kawnu bii lu ci ne rek la mi ngi tolloog kan lay yéem ak ku mu dul yéem waaye loo fi gis kéemtaan la wa ka ayin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruuna alayha wa hum anha muridun am na loo xam ne lii dana yéem ñee am loo xam ne du yéem ñee ndax tey jii di nga gis doomu aadama def ci yaramam loo xam ne lii nga gis doomu aadama jëfandikoo ci xelam loo xam ne lii dangay xam ne lii kéemtaan la ndax ku mën a taxaw calcul boo xam ne bii machine yi gën a xereñ dañ koy yéex a daaneel xale boobu nga jox ko ko gune gu tuuti mu defan la ko ci diggante xef ak xippi lu calcul ba jaxasoo jaxasoo jaxasoo lu mu yéeme yéeme loolu tubaab di wax ay racine carrée ak yu ni loolu mu defan la ko ci xef ak xippi loolu mooy lii kéemtaan te ndax am nag su dee loolu la rek kay kon ñun ñëpp. ay kéemtaan lañu ndax suñu boroom a bindee noonu kawnu bi li jara yéem ci xaadimu rasul mooy danga koy wàcce ba pare ci dara darajey nit nag dal di xool nag li mu liggéey ci diggante juróom ñaar juróom ñaar fukki at ak juróom dindi ci sax ba mu tàmbaleegul liggéey ba nga ne eskay bi liggéey day xajul ci dund benn nit xajul ci dund ñaari nit xajul ci dund ñetti nit yu farlu lool loolu nga waroon a wax bu ko defee su boobaa nit ñi xam ni kii kat nit la waaye nit la koo xam ni kii loolu tubaab di wax sur surhumain nga xool jikko yi ne ci moom nga xam ni benn dong yombul ci doomu aadama am ko moom mu dajale yépp muñ ngor xereñ am yërmande ci jaam yi xoolal irham jamial wara di ñaan ñaanaloo sa bopp ñaanaloo saw askan ñaanaloo say doom ñaanaloo say dëkkandoo mbindeef yépp nag ba ci lu yàt lu lu lu am euh, euh, ruuxu doomu aadama ak lu amul ruuxu doomu aadama loolu moo jara yéem ci xaadimu rasul looloo jara yéem jëmma ngoog joo xam ne ji ju naqaree nawloonteel la xanaa kay xanaa kay li di wax naan comparaison n'a pas rek nit ki nag soo bañee ku la weddi da ngay wax nit ñi ñu lu leer ki yàlla yónni ci ñun sax indi na lu ne pang fang lu ne péng te teewul am ñu ko weddi kon nag ku bëgg ku la bañ a weddi da ngay wax nit ñi ñu ñu lu leer ñun itam ñu góor góorlu nag gën a nag feddali laxasaay yi ci jàng ak ci xam ak xamlu ndax loolu mooy tee façon yooyu ñu ñu ciy dugal ndax yooyu amalul doomu aadama njëriñ sëñ tubaa su dul woon nit du ñu amal njëriñ yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi bu fekkoon suuf si ay malaaka fi ne damay wàcce ci seen ci ñoom ay malaaka waaye ba ñu dee ay nit ñoom ay nit laa leen di yebal ku mel na ñoom kon ñun sëñ tubaa bu dul woon nit du ñu amal njëriñ lii mu ñu jëriñ duñ ko jëriñu ci moom bu ko defee nag mbokk yi ñuy gën di yeewu tuuti nag baax na ci di ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy gindi jëmee ñu ci leer te jële ñu ci lëndëm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.